lu waay gàtt lu fay xew appartement de lu fay xew fay ñoo gën a mus ñoo ndey njaay fakki ne yaa aha aha dañu foog ne ñoo gën a mus ñoo ndey njaay fakki ne fanyo mia fakini dimbarante du jitelugin explique na ma Kiné moo lay message pour nga ñëw fii comme ça nga mën a leeral problème bi lan la ak li xew lan la waxte moom xam na lépp ma dit xam naa lépp euh, laay daanaka wax ci yëpp matul woon sax nga ma koy laajaat te aussi matul woon tamit tamit ngeen may woo parce que li tax loolu mooy bu ngeen demee ba am ku jëlaat portable ki ne ñëw envoyé ma ci message ngeen xam loolu kon jaratuloon ma fiy teew sincèrement te aussi su ma ne lii ngeen may doyee du fi teg sama tank, parce que suma personnalité bëgguma kenn ku ciy dox parce que li may dund man la concerné euh, beneen bi ci topp li ngeen di lijjanti yéen da ngeen ko war a lijjanti ci seen biir heure bu ma ñëwee sa kër gane ma loo fiy def tegg fi sa tànk kon waroo waroo waroo waroo leen a woon a fexe sax man ma ñëw di toog fii pour leeral ak lu kenn xamul kon loolu noonu yéen yéen a ko war a lijjanti seen biir man sama yoon nekku ci voilà sa yoon mi ngi ci ndaxte téléphone bi kinne dugg na ci néegam fekk kii di ko jël kii nag bi muy jël téléphone bi message yi di ñëw ci yow dafa ne ardo moo ko yónni loolu day leer parce que Sacha bu demee ba ñu jàpp ci moom loxoom ci téléphone bi dafa war a leer walla fi mu toll nii nag Cheikh je pense que nit da nga war a am dignité am personnalité ba pare doon gor doon bañkat parce que góor gu mel ni yow nekk ci biir jigéen ñu lay defloo sànku yi ñu lay defloo yu ñaaw yi. je pense que pour une fois war nga diiñ pour une fois war nga doon gor yàlla pour une fois une fois war nga doon gor xamni ne yëfi jigéen yëfi lay fi yëfi góor yëfi la da ngay def yëfi góor pour nga nga nga kit ak sa conscience man lu ndaw loolu rek la lay denk li la waxoon keroog rek jàppewuma la ko mais pour yow nga am looy bañ am looy jomb nga setal sa bopp walla nga leeral mbir yi. wallaay xam nga da ngeen di jaawale di xas nit ki at nga koy jox ay leçons de morale sa discours bu long bi man miin naa ko ci yow parce que déjà yow nawlu woo ma mais ok coo beneen bi ci topp mooy boo dégluwaatee ci say biir wax. maanaam mbir mi dafa leer ci seen biir ba pare yéen nangu woo leen koo lijjanti seen biir bëgg ma laajaat man man lan laa am sama portable bii laa am te du yàgg ba ma laaj ko mu tontu ma que ne kan moo may message en tout cas message yi maa ngi koy gis ci sama portable mi ngi ñëw numéro bi ma xam mooy numéro Fatou ne moom lañ may envoyé message te moom moo ma ci mësoon a envoyé message loolu am naa ci sañ-sañ wala aw ma ci sañ-sañ dèjà yow woon naa la preuve. léegi nag bu fekkee ne da ngeen a dem ba jàpp Sacha mu yor numéro Fatou Kiné di ma ci envoyé message kon kay leer na Sacha moo ma doon envoyé message yi kon. yow yaa mën a fen ban téléphone laa jël euh, numéro Fatou ne di la ci envoyé man damaa mën a bind damaa jàng. ardo mii moo la ci doon envoyé message kii laa jox téléphone bi man maa jël téléphone bi néegu Fatou ne jox ko ardo te ardo jour boobu dafa ne nekkoo fi dafa soxla crédit. ma ko awma crédit munema ne duma fàtki ak mom téléphone am du jéxal crédit demal wut demal demal indil mako ci la ko indi jox ko ko sa yow mi ñame wo yàlla te yow ki la doon envoyé message allahu Mom ni la ko jox ba ma ko joxe dama damaa yow dal mën nga ci mën yow message bi nga dégg ma bind soda nangam ak nangam yow cheikh luma lay doyee man dama sik ak yow len li lañ naan ñakata ak mom boo boko bolel mu dem man séquma ak yow len ma sama xam nga la moy problème bu fekkee ne yow da nga tege ne man dama dama am fu ma la tege wala naa nga ma sàngam yaa ngi nax sa bopp xam na laa la jàppee sa tur bi mooy turu muus Sacha rus naa la nag trop rus naa la trop mais lii moom wax dëgg yàlla bu ma ci woowati. yow yaa mën a fen sooy fag sa leel bu sori bi. yow man ngay fenal yow man ngay fenal. lii dama bëgg nga lijjanti ko ba mu leer naa ñu. ma la man bo waxe yaay fenkat bu mag bu ma ñuss tan nga teggi sa ya baatu bu bëgg de tay cheikh bu ñewul won leral li ñepp dañuy japp ne yow bo xamee da nga ragal fatki ne kay yow yow yow lo jëlé téléphone ay way lo jëlé téléphone tan li lañ naan tan ah? tàng nak nag sos bu ne no ardo nak yow ndeke mën nga fi mën fe mën fa ca dess yow ardo jël jëloo téléphone fatki ne ñaan ma ci crédit yow yaangi def li ngay def ba bari tofi ne no ardo nak mën nga fen nak yow man maa la dese man Abdou man ngeen di eh, eh, sosal eh. yak Cheikh fajoon ngeen ngeen may kompolo man mi yow yàlla nañu yàlla àtte yow yàlla nañu yàlla àtte ci biir kër gi. ne bis bu ñu yàlla àttee nga dee. dee ngay def xam moom daal moom ngay def. crédit la doon wut mu ne yow dangaa ngaa génn. Oh, man fa sama téléphone amul crédit. mu woo ma ne ma Sosa du jubóo ma ak Fatou damaa bëgg nga àbbal ma téléphone ma dem fekkuma Fatou Kiné ci néeg ba ma jël téléphone bi defe ne ñoom ñaar amul problème affaire wujju la rek ay mag la raq lañu ma ñëw jox ko téléphone bi génn xaw ma lu mu message man damaa jàng. man damaa mën a bind yow Ardo yaa mën a fen. Ardo setalal sama der waaye mën nga lijjanti lu ne yow. jël say bagages dama la ko ñaan rek bàyyi fi dama la ko ñaan rek ngir yàlla naa ne dangaa mer mais man li mu sosal waxal ma wax ji mën naa kaa dégg dama la koo ñaan rek chicha bàyyi ko fi rafetul nga génnee ko te boo ko génnee amul fu mu jëm te bu dul dara it magu fàttali ne sa jabar la te bis bu demee it sama der dina yàqu ndax dinañ ne man maa tax nga génnee kër gi kamu ko sax pardon man daanaan laa te li def dama ko maîtriser xam ko bu baax newoon naa duma ànd ak coono aussi man daanu ba pare bëgg la daane waale non non oui Cheikh est-ce que xam nga appel yi ak message yi Ardo man duma gan ci yow de te dafay mel ne man wu ma commencement bi wala xaw ma nu mu demee jëli naa lépp mais yow ci sa bopp yow yaa cuune parce que wax naa la ko fi temps yi la passé bi ñu taxawee nee na la gis nga dil dëgg boo koy def da nga nekk dealer sa dara warta senn wax nga dëgg man mii maa def erreur fautif bi ci man nii la jóge mais seex jàppal ni bis ni ci tey bu ma la jàppoon benn yokk naa ko billahi wallahi Cheikh fi nga ma jëlee xamoo ko sax imagine toi laay bu naanee woon ndox ni lii man la rek. attends defal attention bu baax yaakaar nga ne job bi jeex na liggéey bi jeex na ba tey des na te boo deful attention di nga xam li ma lay wax nii bu baax a baax a baax a baax man nag. bi ñuy taxaw ma lay wax ne la waroo ci woon a boole sa char mënoo ko woon a gis ba boole nga ko ci tey mu na Hmm? lima ma la wax tamit peut-être boo teeyee di ko gis te di nga ne defal attention Ardo. man sama tiitaange tay gi xam nga lamb ji yow lañu yaakar mbeur lu mu bari bari doole suñu ko dóoree ba mu gañu fan la jëm. day dem Ardo. wa léegi lan moo tax nga nga bëgg nek bu nango nek Ardo fii yóbbuwoo ko ardo mooy mission bi matale woo ko. wax nga dëgg. jigéenu ardo yëpp man lañuy xaar man lañuy yaakaar. guerre bi nag dafa des. Mm. ki ne fii ak yóbbuwoo ko ardo mooy que mission bi mag merci heure bu ma la gisee. Mm-hmm. danga may may doole yokk ma force. bi may jox loxo bële paase. Mm. may sentir noir. ak blanc. waxoon naa la ne bul ci boole Socha dina senn tey joxaat nga ma loxo nee naa la am na lu des te li des bàyyi ko xel bu baax lu mu yàgg yàgg dina ñëw. dinaa ko déggu incha allah ak lépp lu mu mën ci doon man ak yow lay doon ci dootoo wéetati mukk ci àdduna ndax foo nekk maa ngi sa ginnaaw en tout cas merci maa ngi daw balaa ñu may wër ci biir kër gi merci. Kaadaa yow chaque jour nag danga may gën a bett chaque jour danga may gën a bett. bi yoon moom dañ maa kompaloo sama yoon nekku ci yaa ngi dégg. <laughs> sama yoon nekku ci c'est man defe naa ne sama tur bi. moo saf ci nit ñi lu ñu yëkkati rek ne chacha lu ñu jot rek daal di may këpp waaye nag. yàlla gëmul nelawul. yaa bindoo ñu di tabax. yaa bindoo ñu. man ma rek dañ ñuy waxtaan gis na chacha man yaakaaroon naa ni àdduna du yàgg ba yow def nga ñu lu ne mais lii man ma man affaire bi am na xalaat naa chaque jour maa ngi naa affaire mais musuma see xalaat sa tur musuma xalaat ne am nga fitu def lii yow Fatou Kiné kon yow pour man maa def lii yow la yow déggoo li ma luñ ma waxaat mu koy gëm Ndeye Ndiaye toog naa fii ci salle bi Ardo ñaan ma crédit ma ne ko aw ma crédit hmm. mu ne Laye saw dafa génn man de mu ne ma Fatou Kiné téléphone moom du jeexal crédit ma ne ko faat ki ne dama jëlal ko sa bopp ay wujju ngeen yaa ngi dégg mu ne ma jàppale ma rek daal di wax ma def rek entre kii rek yaa ngi dégg defe na ardo nit la ndekk ardo warkat la waaye ardo dina xam ne ardo dugg na ci loo xamante ni billaay ardo di ardo dina ko diggaale dimbali ma sa saa gis nga wax bu dofee noppi koy dégg mën a wér lii nga fi wax ay waxi ndax saxat nag la gëmuma la pour nga yaakaar man nga maa convaincre wan na ne man lii yow tokkewoo ci dañ laa diin gëmuma la ndax dangaa bëgg bii yow dërëm nga bëgg yow lu la waaye buñ la doon ñu la waxoon reyal nit sax ma jox la temps koy def ndax am nga fitam xaalis nga bëgg gis nga nit nag du mel noonu dangay gore wettali ku gore te ñun sax suñ jëliwuñu la lii yëpp saa gisuñu nday gisuñu baay yow la ñu gis nga war ñoo tenir gis nga suñu noonu bu jugee fee sax jox la ay milliards na la defal lii fàtki ne waroo ko woon def ku ñu toog ku ma bett nga nag yow yow moom xamatuma lu may waxal xamatuma ko ndax man moom damaa génn si yow ba set wit ndax sama xol bee set ci yow. ardo de bokku ndey ak baay moom. ardo néeg la rek ku yeewu dem sama. Ah, yow dimbali ni mu la ardo day jaay bandi ak mën a fen. yow yaa waaye di ba doxandeem ñëw. koo xam ni boo xamee woo ko la jur ca aadama ak awa ñëw di la diriger naa la defal li defal laa surtout maak sa mbokk nga koy def. di def lu baax doon moom laa doon. loolu mooy def lu baax loo xam da doon tas sëy faat ki nekk laay sow loolu def lu baax. damaa xam lu mu doon yow yaa gën a xam na la message lu ma ci xam. Eh. man garaawul jël man damay nangu. Sacha damay nangu yàlla rek moo ma mën a setal. yàlla rek moo ma mën a setal yow dimbali ñu amoo ñaar fukki at waaye yow xam nga lu ne xam nga loo xam ne sax ñi am ñaar fukki at xamuñu ko may ma jàmm mun a ay dañoo lii ak damaa lii dara safu xam nga li tax mu def loolu yaa yow may ma jàmm dara safu man nag moom damaa génn si yow man moom gis la sax léegi ak sama gis sama butit yi laa yemale pour wax la dëkk mënatuma la sax xool yow xool bu yekk ndax ku def lii moom sa mbokk bu ëllëgee mën na laa jékkuwaat defaat la lu gën a metti lii xale naa si yow de ma la ko Ndeye Ndiaye Ndeye gis nga ay loxo yu tilim ci biir famille lañ koy raxasee man yàlla mi ma tiim xam na ne defuma yëguma bii yoon dañ maa sosal laay saw nag moom décision bi mu jël damaa bëgg nga dimbale ma ci rek mu bàyyi ma ma toog ci kër gi ndax su ma fi génnee aw ma fu ma jëm <laughs> te damaa nekk ci problème yoo xamante ni xamu leen ko yaa ngi dégg ak lu ci munti doon rek dimbali ma rek nga waxtaan ak laay saw sa xarit la mu bàyyi ma ci kër gi ndax neen daf may génnee kër gi kan mooy waxtaan laay saw man <laughs> bu dee man dong laay saw du ñëwaat naan la tooga laay laa xel yow sa saa loolu xanaa cin la ñuy diri yow laay saw nga naroon a yàq ay jabaram di leen mettre en mal yow lii doo nga tax bu bu ñaari nit di wujje ñu naan na njëkk yeeg ñëpp dem ku ñu wutal leen fu ñu dëkk ndax wóoru mbokk yeeg yëpp nañ dem ndax wóorul xamoo nit yow sa genre yi donc ñooy influence ay wujj ba ñuy tojante butéel ak këppante ay asiba eh, soodewu yow sa genre yi ñoo koy def kii du la bàyyi ci kër gi danger la ndax du nekk sax si jàmm nag laay saw day liggéey di xëy di dem man mi moom ma saw tànk damay dem Fatou Kiné ak Ardo doo nga fi des wóoru ak yow mi mën nga leen a ëffal ba ñu xeex bu boobaa dina fit gaañ ki Kiné ndax yow xam nga ne Fatou Kiné fi xeexul xuloowul yow xam nga loolu demal rek sa yoon sa yoon jàmm ak salaam boo demee nga wut foo dem rek àdduna am solo utal pancré seeru wax ci man duma si sa génn te bu dul woon ak yow billaahi dinaa ko attaqué war ngaa wax ak moom ma arrêté yi muy def parce que li ñu def di jël téléphone ci message dañ ko tooñ boo ko attaqué foo ko def léegi kan moo ko tooñ ñu jël téléphone di ko message lenn lu ne danga koy xool ci bu doon yow. du fàttali ne noonu la ma bëgg a jàppee te guerre la woote laay dañ ciy dem ba mu neex ndax man dama sonn ci daw bi. Hmm. kër gi nag fi maa ngi fi guerre fi am fi maa ngi fi guerre am yéen ñaar ñëpp sëy moo leen fi bàyyi guerre indiwu leen fi sama kër gi jàmm moo fi am. problème am na na dinaa xool nuñ koy régler ba mu mat sëkk ba pare leer nañ li ma la waxoon rek laa lay waxaat lu ci waay def muy yow di Fatou Kiné conséquences yi di ko assumer. parce que kon Kiné war naa assumer. waaw bu waree assumer rek dina assumer yow boo waree assumer dina yéen ñaar ñëpp xaw ma ci kan la ci mais mi ngi feeñ nànk-nànk mais nag fii sëy moo la fi ne ak jàmm loolu fii am. ki ne sey ko fi indi ak jam lolo fi am ken du nek sama bir keur gi di ak man di may indil fitna duma ko nang def len glace rek mu sedd ki wara a dal kay xam nga ko te yakamti na nga wax bamu dugg la wër la gennat wa dedet ki nga xamantene ni neena pat mom mo moom waye ki ñaw la kenn du ko tuddu wa parce que dafa la miñam lay wala yow do dégg limala gis nga ni lu mu bëgg dama ci dem ak mom duma ko may dara benn yoon laay wax te dootuma waxaat ak mandi wu sax ah. yo Ardo man ngay jaay ni han yo lan mo la taxa don baad wala man mako def sax bamay sekk waron na sekk ko xamanteni nit la han yo so do way wo chaque jour ma ne bandi do wax da ngeen jaay bandi ngeen xam man wuyu bi ngeen fi fekk. yo wuyu wo yow. yow wuyu woo yow sama bëreet sax xajul ci yow dama la doon testé di xool ndax yow nit nga ndekete yow doo nit kaay ma wax la mënoo ci man dërëm gis nga boo dof dofloo ba laay saw génnee ma ci biti yow dootoo ko ti yow. yow de bu yóbboo nga pare say bagage te nga jàpp ni sa génn ngi nii maa ngi koy gis. ah d'accord sooy rangé nga woo ma ma jàppale la. gis nga yow bu ma génnee. sa sëy bii dina wex xat xat xat ci yow. sama sëy tuuti nga pour weexal ko. ah tuuti naa ci. waaw ah baax na. ba ma la yónnee téléphone Fatou Kiné nga wax ma li may wax. boobu laa xam ne yar nga ci suuf claté nga sama diir te sama diir man balaa nga koy claté yow ma claté la yow mm. bandi woo dama lay jaay. ah danga may jaay. waaw dama lay won ne la yow. man ba may jóg ak man ba may bandi booba yow juddoogoo <laughs> diggaale nga ko koo xamante ne nag xeexam du jeex. na neex yow gis nga kër gi fii. sa toogaay fii dina metti lool man xam naa ne dinaa génn waaye yow tamit xamal ne sama bakkan mi ngi sa loxo. yow sa sëy bii naa ci këpp kaani ba mu saf saf. ba foo laal mu saf yow su ma la ko waxee war nga koo gëm. sama sëy yow yaa ko su ma la waxee yow yow <laughs> lii dinaa ko def war na ko yow da ngay wuyu yow baadoo la pire nga yow ndeket yow yow kuy jàpp baadoola la rek bu yeboo mu jàpp la. yow mi yaay baadoo la yow nga xam ne da war sa propre dret yow baadoo la bi yow. waaw na yow Chicha yow mi nga xam ne dawoo dara. xoolal ragaloo dara man duma ma fi nekk sax di wax ngay benn benneen man du ma sa moroom. yaa ngi may dégg doo def li ngay def ba pare may wax nga doy ëpp laam man dama lay dóor fii ba nga tëdd te dara du jóg est-ce que dégg ma est dégg ma yow bis ni ko tey xamal na yow maag yow dina neex kër gi dina sàpp sàpp ci yow waa lañ ci dem yow dina neex sàpp ci yow man nga fi fekk yow bànn woo sax sama tey Rogel naa benn mbuus bu la nga yor yow nga investir nga baadoo la <laughs> way sawanday génn kër gi force yéen da ngeen jaay bandi yéen bandi woo leen yéen man maa leen di roñ kenn par kenn di leen génnee balaa may am lu ma neex rek fàkki ne topp ci te noonu lay demee jëm ñàkk jom bay bëgg a nekk fi ay xale yu ndaw du la exploité ndax xaalis man sama xaalis laa yor lu ma neex ngeen di def waaw ñàkk jom xoolal man tax na sama fàttali ma doon def kër gi kenn mun fi am jàmm nit kuy jaay say propre rak doo bàyyi keneen ma di wajj wajj wajj waaye di nga xam ne man nga fi fekk yow wuyu woo yow <laughs> nee naa la bandi woyooy baayam chaque jour ma ne leen bandi du wax chaque jour ma wax leen ko waaye yéen dafa mel doo leen dégg sama xaalis pour yow di nga ko lekk mu reesee noonu da yomb trop sonn naa ci yéen kenn mënu fee noppaleeku foo toog jëli air ñu fekk la fa. de lu fay xew waay ñoo gën a mus ñoo ndey njaay fakki ne yaa aha aha ah, ah, ah. dañu foog ne ñoo gën a mus ñoo ndey njaay fakki ne yaa aha kuñ ko sekkal dem mbala fa ñoom ñaar fakki ne dem balante looking now I but ko bëgg ko loo te gisuloo